Baye ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu waa RTT TV di nuyu personnel bi yëpp rek di leen nuyu yow mi Xaadim sa directeur programme maa ngi lay nuyu bu baax di leen ziare di nuy mboolem sénégalais sénégalaises yëpp di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay man la Baye Sidi Diop. sa réaction ci contexte bi mu nekkee weeru koor la ñu ci tànn suñu njiitu réew loo xam ne mosul am ci histoire Sénégal ak situation élection waaw euh, sëñ Xaadim loolu vraiment tey jii ak mbégte lañ ci am bi ñu xëyee nit ñi génn nañu massivement euh, vraiment ak weeru koor bi nii moo lay war a xamal ne rek nit ñi am nañu décision am nañu détermination ci liñ nekk parce que euh, mbirum njiitum réew tànn ko loolu kenn ku nekk ca warteef la ci yow te it responsabilité la responsabilité boobu nag dafa war a laaj nga jël ay engagement yoo xam ni li ngay def nga xool ko natt ko xam ne li ngay def du caaxaan ndax kuy dagaan baatu askan wi di ko jox njiitu réew nga di ko tànn kooku da nga da nga dafa war a nekk loo xam ni nekkul mais nag euh, vraiment nit ñëpp génn nañu mag ñi génn nañu góor ñi jigéen ñi xale yi génn nañu mais vraiment ba vote yi ni muy déroulé macha allah ba amul benn jafe-jafe nit ñaa ngi kaf ñi ngi soit sa parti bi nga bokk ak parti bi nga bokk loolu ci école bi moom wax dëgg yàlla amul fi benn jafe-jafe fii ci Demba Jaxate wax dëgg yàlla. kon daal koor koor gi nag moom jéewu ci dara wax dëgg yàlla parce que da ngay gis ni sax nga xam ni lii ñu def nii dañ ko bëgg dañuy def ni vraiment jël nañ ci seeni i responsabilité moo tax euh, huit heures lañ lañ fi ñëw na presque ñu ngi fi ñëw huit heures moyen huit heures la war di démarrer ba ba heure bii gis nga ko nit ñaa ngi boo fi ñëwoon ay trois heures da nga ni ñu sax koor gi da leen jàppale noonu mais non non dañoo toog voté teg ko ci yoon bureau yi amul benn problème amul benn coow amul benn xiiro amul benn ŋaayoo lii c'est la première lii nag jàngat la ci askan bi yëpp lii nag euh, vraiment day tax ñu naw Sénégal ndax démocratie bi ñuy wax ci Sénégal lii da koy gën a jëmmal lii da koy gën a wane kon moo tax tey lii am tey fii ci ci réew mi vraiment ñun kontaan nañ ci lool vraiment gis nañ ci euh, tawféex. question bi ñuy posé second deuxième tour dana am wala du am waaw man nag euh, comme fi ma féete li waaj naan lu ne mën naa nekk nag lu ne mën naa nekk waaye dañuy ñaan yàlla rek suñu borom def jàmm ak xéewal comme ni ko responsable yëpp waxee. ndax boo nekkee ci àdduna nag te ngay wax te yàlla yor dogal bi bul bul wax bul suñu borom ci dogalam moom li ñu mën a wax daal mooy daa ñu ngi ñaan daal suñu borom indi jàmm ak xéewal defal ñu taw féex waaye daal bu nu sañoon ah, du du àgg foofu. Ah, ñu lay gërëm waaw maa ngi leen di sant di leen di wax ni rek ah, nañu gën a góorgóorlu rek di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak di wax ni rek kontaan nañu gis nañ seen taxawaay yéen waa RTT TV muy télé boo xam ne tele askan wi la donte télé artisan yi la mais télé askan wi la parce que yéen ngi fekk nit ñi fa ñu nekk di leen génne di leen yëkkati di leen wan fi di wane vraiment yéen it ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne daal waa Sénégal waa adduna maa leen wax télé bii xool leen ko jàpp ko télé bii de télé boo xamante ne bii wax dëgg yàlla day jàppale askan wi di wane boo lépp looy mën di def ci adduna ci lu baax ak lu rafet boo ñëwee télé bi ci la gën a gaawee jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh téléspectatrices yi ak téléspectateurs maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Euh, bu waa RTTT maa ngi leen di ziar bu baax TV vraiment di leen beral cant ak ngërëm ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom ngeen nekkee ci biir dëkk bi macha allah rabbuna di taataan ay xabaar di ko di ko di ko di ko baaxee askan wi ñëpp nag rafetlu liggéey bu am solo bi ngeen ci def très franchement ci lii nga xamante ni ci la ñu nekk muy ay élection présidentielle macha allah ñu ngi ñaan ci mbaaxu suñu borom yàlla na jeexee ci jàmm bu jeexee nag ku yàlla mën a jiital ci réew mi nga nekk président de la république ñu ngi ñaan na gestu ginnaaw télévision locale yi surtout RTT ak lu mel ni ñoom Thiès TV ak télé Thiès yi fi nekk yëpp très franchement parce que avec vos maigres moyens yéen a ngi def liggéey bu am solo waaw vous ménager vraiment avec les peu d'efforts que vous en avez yéen a ngi def ay efforts yu yaatoo yaatu vraiment di la nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm. di fekk euh, à fait. waaw alhamdulilah tàmbali na ci bisimilahi rahmaani rahim d' abord ñu ngi ñaan mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin donc fii ngeen ma fekk mooy sama centre de vote fii laay voté bureau numéro 15 donc euh, maa ngi woon ci beneen centre mais dama transféré ñëw fii tey nekk sama deuxième élection ci bi ma defee transfert bi fii ci centre Demba Diakhaté yàlla dogal it mu nekk centre bu ma jik may ñaan sama candidat gagné génn au premier tour incha allah yàlla mën na ko mais fii on a démarré bien jii maa ngi fekk suma frère le premier adjoint au maire Abdoulaye Sall bokk ci coalition Diomaye ñu ngi ne nga gis ñu toog di waxtaan nga gis également waa parti réew mi bi nga xamante ne ñun fa lañ def suñu carrière politique donc derrière président Idrissa Seck ñu ngi nii toog ak suñu ñoom sœur ñoom jaara di kaf di ree di waxtaan aujourd'hui on est avec notre mentor notre grand frère le maire Pape Diop bi nga xam dafa ànd ak frère Abdoulaye Dièye jàppale la coalition Amadou Ba donc ñun ñu ànd ak moom di soutenir la candidature du président Amadou Ba donc tey ñu ngi toog fii di ñaan yàlla aussi vraiment yaa ñu gis en famille liggéey ah. yàlla pare na faalun li ma yurit yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko jaam nag pexeem la am préparation ngay am waaj ngay mën a am mais yàlla mooy joxe ndam donc ñu ngi ñaan ci mbaaxu yàlla ndam li génnul Sénégal mais yàlla na ko yàlla jox euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar incha allah ñu jël ndam li loolu la ñu ñaan yàlla. waaw euh, j'ai constaté que aussi que ni euh, am na tuuti manquement par rapport avec la jeunesse tey suba moo ëppoon influence mais tey ji defe naa ni su may wax ni vote Thiès sax d'une manière générale parce que j'ai des centres yéen gis ngeen ma ci centre yi daje naa ak yéen Darou Salaam dem naa Kaba Sall dem naa si talamine dem naa Demba Diakhaté et cetera Ablaye Ablaye Yakhine mais daal xaw naa seetlu ni jeunesse bi des nañoo ñëw pour voter si mag ñi laa gën a gis ñu dem. waaw vraiment kon quand je parle je dis que ni euh, fii à donc euh, on est à cinquante cinq voire soixante pour cent waaw maa ngi ko gis quoi donc vraiment ci ci ci nit ñi ah euh, adultes yi nag vraiment ak troisième âge yi gis naa ni moom ils sont sortis massivement pour venir def leur devoir citoyen franchement loolu gis naa ko. bon man nag damay jàpp ni euh, ki ma ngemb dafay gagné au premier tour loolu laa jàpp man xalaatuma ay deuxième tour honnêtement xalaatuma ko parce que donc liñ doon gis xama nga campagne bruit la campagne bruit la. ku nekk am na sañ-sañu wax ku nekk am na ni fan sañ-sañu euh, fëgg sa dënn mais gëw ma dem ci làmb di bàkku man gëw ma lool li ma gëm mooy après lay bàkku incha allah naa gëm naa ni daal donc euh, notre candidat va sortir au premier tour incha allah parce que jëf nañ ko fi liggéey nañ ko fi mais également aussi que y a des responsables yu ma gis yoo xam te ne ils sont engagés vraiment pour mën koo élire au suffrage universel loolu daal gis naa ko xalaatuma daal deuxième tour vraiment bu amee it bon mu doon surprise ci man mais je ne pense vraiment maa ngi leen di ziar di bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen encouragé également ci liggéey bu am solo bi ngeen nekkee jërë ngeen jëf yàlla na Sénégal am jàmm élection yàlla nañ koy def ci jàmm ku mën a gagné incha allah rabbuna bu ñu yeewoo ñooy bokkaat suñu Sénégal vraiment kon na ñëpp am xel surtout je lance un appel très solennel donc euh, aux Sénégalais à ñu gëm yàlla te xam ni yàlla pare na président yàlla mooy fipp ci nguuram tappal nguur lu mën a xew nañu nangu après ñu liggéey Sénégal ki yàlla jiital ñu topp ci ginnaawam ñu liggéey Sénégal man loolu gëm bi may dem élection locale ànduma woon ak ki gagné muy le maire Ousmane Diagne sama frère la mais aujourd'hui je m'engage pour ma ma bu ma gagné dem ànd ak moom dem liggéey parce que Sénégal lay liggéeyal commune Thiès Est lay liggéeyal donc man je travaille aussi pour la commune parce que bu ñuy def politique c'est pour développer sur le développement Sénégal laa gëm Sénégal laa bëgg donc ñun bi ñu jàngee toog ba suñu njàng jeex dañoo dem nekk ay vrai patriote patriote nag je dis dans le vrai sens de patriote patriote mooy défendre les couleurs de la nation parce que dañoo dem armée dem défendre nekk militaire toog te boobaa engagement la woon bëgg-bëgg la woon donc xaaruñ ci woon dara mais dañoo bëggoon nekk ay patriote def acte de citoyenneté donc ñu génn foofu ñëw toog di def acte politique dañ koy def ak acte bu noble du nga far nit ñi nangul nit fu ñu nekk mais ngeen jëf merci beaucoup. mbokk yi euh, man la Ablaye Sall euh, premier adjoint au maire de la commune de Thiès Est nekk le coordonnateur départemental du FSDBJ de Cheikh Bamba Dièye en même temps nekk le secrétaire exécutif de la coalition Diomaye 2024 du département de Thiès euh, chargé de la communication de la commune de Thiès Est pour la coalition Diomaye président. Ah, waaw ñoo ngi école cité Senghor d' abord li ñu fi indi mooy def suñu devoiru citoyen waaw ah, parce que yàlla dafa def ni fi la ñuy voté ñu ñëw voté ba pare voilà donc euh, avant ñuy voté aussi le matin avec euh, le mandataire national Amadou Ba et le maire euh, de la commune de Thiès Est ainsi que le maire de Thiès Nord Birame Souleye Diop ainsi que le maire de la ville de Thiès docteur Babacar Diop on a fait le tour des centres de vote pour xool euh, la situation évaluer xool ndax amul impact parce que au-delà de notre casquette politique nous sommes les maires am na ci loo xam ne ñooy administrer population yi war nañoo mën a xool fu jafe-jafe am ñu accompagner l'administration territoriale par rapport au déroulement du scrutin mais force est de constater que depuis le début du scrutin nous n'avons pas eu de d'événements majeurs waaw constaté euh, Euh, comment dirais-je con constaté wuñ ko euh, ci en tout cas ci lieu de vote yi nga xam ne ou centre de vote yi nga xam ne def dem nañ fa parce que lu ñu gis mooy le vote se déroule normalement les population viennent boo xoolee taux de participation yi soo laajee da ngay gis ni vraiment am nañ taux de participation bu favorable waaw boo xam ni par rapport aux élections passées à l'heure où je vous parle euh, taux bi tollul woon noonu donc ça montre que les Sénégalais se sont appropriés du vote ils savent que cette opportunité pour euh, euh, s'exprimer librement et de manière démocratique, choisir le candidat de leur choix. Et que nous espérons de tout cœur que ce candidat que les Sénégalais vont plébisciter euh, à, l'heure de la fermeture des votes, que ce soit le candidat de la coalition Diomaye Président, car mm, li wóor ba wóor mooy fii moom au niveau du département de Thiès, euh, avec euh, toute la modestie qui s'y les dés sont déjà pipés waaw parce que li ñu gis ci tendance ci nit ñi bu ñu duggee dans les centres de vote même su fekkee ni notre intention c'est pas d'influencer mais bu ñu nit ñi gisee nit ñi accueillir ak euh, espoir bi ñu leen euh, suscité on voit nettement que vraiment les gens ils sont convaincus ils ont ils sont, ils sont, ils sont, ils sont avec nous. Voilà, donc euh, ils se sont appropriés la chose et ils veulent le changement. Euh, les gens parlent de premier tour, deuxième tour, moi je parle d'un quart de tour. On ne fera même pas un premier tour, on fera un quart de tour euh, pour, pour, pour nous arrêter au bureau de vote. Euh, mais euh, avant l'heure, euh, vous allez constater par vous-même que on est, on est largement devant. maam Binta ñu ngi lay waaw ñu ngi leen di fay bu baax asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa mbooloo mi ñëpp ku ci nekk sa tur ak ki sa sant di leen sant nag ndax ci suba ba tey kenn toogul kenn taxawul ñu ngi ci liggéey bi bu baax ba yàlla def na jàmm ñu ngi toog di déglu ñu pare génn résultat yi waaw. Euh, ci sa jàng élection yi ni mu déroulé amul benn faay wala loo ci mën a déedéet macha benn coow amul benn problème amul dara amul. wote nañ ko ci jàmm wax dëgg yàlla. nit ñi génn nañu est waaw nit ñi moom génn nañu massivement wax dëgg yàlla génn nañu. waaw ah, ñu gis absence su ndaw ñi dafa mel ni li ëpp ci taux participation bi ay mag lañu lan moo waral mag ñi génn xale Ah, ah mag mag ñi génn nañu xale yi génn nañu de waaw xale yi génn nañu parce que ci suba xale yi fi ëpp ci suba xale yi ëpp ci centre bi wax dëgg yàlla waaw Euh, naka ngeen def ak seen euh, seen candidat yaakaar ni am ndam waaw macha allah ñun dañuy am ndam ci kàttanu suñu borom waaw macha allah dañuy am ndam mu ngi koy ñaan sunu borom yàlla muy joxe ndam yàlla nañ ko jox ci barke Seydina Mohamed. waaw ah, kan mooy seen candidat. waaw euh, benn bokk yaakaar Amadou Ba. Amadou Ba. Mm. Ah. mooy sunu candidat. bàyyi la nga message xam ne tey lu mën a xew it Sénégal suñu Sénégal mm. lu mën a xew it fii la ñuy des lu mu waaw lépp lu mën a xew yàlla ki kii gañe bind na ko ca aras ñun mënuñu la jul yor sunuy carte dem wote kii gañe yàlla moo ko xam bu gañe amee nag bañ ni wiiw bu kenn taal bu kenn xeex bu kenn def dara xam ne nag si réew mi suñu réew la buñ ko taaleet ñoo koy ñoo ñoo ko ñoo koy wutaat kon réew mi suñu réew la jàmm ci xaj ndax jaboot jàmm mënuñoo génn sunuy kër mënuñoo joge suñu kër ndax fii la am sunuy titre foncier kon jàmm moo xaj ci ñun nañu degal yëf yi ci jàmm nii ñu ko defee ci jàmm na continuer ci jàmm ki ki war a gañe borom wax na ko ca aras du man du keneen yàllaay fal njiit yàllaa koy joxe kenn du ko jox sa bopp ah, waaw maam Binta Diop waaw kay jaara ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoo présenté waaw maa ngi nuyu ñëpp du nuyu sénégalais yi di nuyu diaspora bi di baalu ñëpp àq ci weeru koor bi te di leen baal àq man maa ngi tudd Mame Diarra Diop di fi représenté coalition Idy 2019 di mandataire bi fii ci centre Demba Diakhaté Thiès Est. yan manquement moo am ci bureau de vote yi. waaw bureau de vote yi moom sant yàlla rek di wax alhamdulilah. lépp lu ñu ministre bi waxoon tey bi ñu ñëwee fii ci centre bi gis nañu bulletins yi teel naa ñëw teel nañoo ubbi bureau yi population bi tamit teel nañoo ñëw voté nañ ci jàmm ñuy toog di xaar résultat yi que le meilleur jàpp waaw jàpp nañ ko ndax ñun ah ñun boog suñu côté jàpp nañ bu jàmm dee am rek. ñun ci la ñuy bokk bu ay dee amit ñun duñ ci bokk ndax suñu leader ku ko xam xam ni paix la woote jàmm la woote dal la woote ndax suñu boroom mooy fal ku ci nekk dem nga dugg ci sénégalais yi wax ak ñoom sabablu ndax yàlla loolu lañu sant ku bëgg dara da ngay sabablu waaye moom moo yor dogal bi kon moom mi yor dogal bi yàlla nañu may ndam waaw te bu ñu mayee ndamit sénégalais yëpp ñu ñaan ñëpp fekke ko te mu ànd ci dal ci paix ñu ànd liggéey Sénégal te xam ni lu mënti doon ñooy bokkaat Sénégal ñooy bokk kër yi ñu dëkk ñooy bokk gox yi. waaw deuxième tour moom defe naa ni Sénégal mënatu fee ñàkk ndax parti politique yi ñoo bëri te nouvelle génération bi dafa am lu ñuy incarné maire yeeg paa yi fi nekk tamit am nañu lu ñu bëgg a instauré mu des fi kon faaw deuxième tour am mun ta ñàkk waaw. ok jërëjëf.